ñu seeti nga xam ne moom ak Senghor papay Senghor ak góor gi ñoo bokk ndey ak baay waaye sëtu Senghor moom tamit jóge ca dëkk ba France mer na nee na Ahmed Khalifa warut a toog ci télévision bi naan Senghor liggéeyul dara ci réew mi loolu nag maam ja ak sët ga ña ngay defendre Senghor ñu seeti leen. Senghor Senghor. nekk sa sa sant. ñu ngi lay fay. maa ngi tudd Jogomay man ak sum uh, papa Léopold Sédar Senghor ñoo bokk ak baay. bi sëtam la. Senghor li mu liggéey Sénégal Ahmed Khalifa Niass waru ko neenal. ñu noo de diñ fi séeréer. de Joal Fadiouth Senghor a travaillé pour le Sénégal ah ah li mu liggéey fii Sénégal ñëpp xam nañ ko Senghor bu Serigne Fallou Mbacké Senghor bu Mame Aladji Malick Senghor bu Baye Laye bu Baye Niass amul kilifa diine bu nekk Sénégal boo xam ne Senghor ñaanaloo ko nit ku baax ku liggéey Sénégal ba démocratie am tey Ahmed Khalifa Niass il faut que mu arrête ce qu'il de dire loolu ñaaw na nit du liggéey ba génn àdduna nga nenal ko wax c'est pas loolu baaxul pourquoi moom bu fi jóge tey est-ce que du ne bu ñu waxoon ne defu fi dara du neex ay doomam Qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal, lui, Ahmed Khalifa Il n'a rien fait pour le Sénégal, quand même. bëgg nekk président moo tax mu tabax palais que fallait tuddee ko palais même du doon palais présidentiel jamais ay ana Senghor Senghor maa takk setem Senghor bokk bokkuñu ak dara ñun Senghor la ñu sant moom Ñas la sant bu xoolee ci ay maamam du wax dara Senghor parce que ñooñu ak Senghor dañu nekkoon nekk bu rafet pourquoi il faut que ñu arrêter quel déraillement de Ahmed Khalifa qu'est-ce que ça veut dire ça donc bi mer ay séeréer nañu séeréer yi nekk nañu fi ba dem defuñu kenn lu ñaw Senghor liggéey na Sénégal quoi qu'on puisse dire il a travaillé pour le Sénégal Jogomay suis venu au Sénégal parce que je suis très nerveux, ce qu'il a dit. Je ne suis pas content. Parce que, attends, je t'explique. Senghor, c'est le premier président du Sénégal. Tout le monde le sait. Oui ou non Oui. le premier écrivain au Sénégal. Oui ou non Oui. le premier serreur qui est là au Sénégal, président. Oui. Pas pareil. il a tout fait pour les Sénégalais. Senghor.

Senghor Senghor lafaxana tegna démocratie Sénégal rene una atana oh, oh, Senghor tu as travaillé pour ton peuple rek fugnona Diogomaye fils de Diogoye et de Gnilane enfant de Joal Fadiouth repose en paix alléluia repose en paix Senghor tes ennemis parleront derrière toi మేజే వార్టకై డాల పారాడి ఆ నగె ఫొగ్నే నసెర ఇయ ఇనరో కోసెరే సి ననున్ డొగ్నే నన ఫొనె న కండిగన సగోర్ ఆ నఫెంగర్ దెమో జెంగోజుగోనే రంగిలా గోవై